qaala taala wa ida jaaka alladina yuminuuna bi ayatina faqul salaamun aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw loolu mbokk yi nga xamante ne ñu ngi seetaan sa seen télé Mouslih TV ñu ngi leen di nuyu seen mbokk ci yàlla Ibrahima Diaw moo ñëwaat ci seen waxtaan ci aalamu jinni wa shayatin muy ci monde jinne yeeg ah, seytaane yi Euh, ku déglu waxtaan mu weesu mi ñu ngi nekkoon ci di leeral li nga xamante ne mooy ñoom jinne yi de xamuñu li nga xamante ne moom mooy euh, kumpa tey nag incha allah euh, dañuy jëlaat yeneen ñaari leeral ci aalamu jinn wa shayatin mooy leeral bu njëkk moom mooy halin jinn zukurun wa inaasun ndax ñoom jinne yi ay góor lañ ak ay jigéen comme nu doomu aadama yi nekkee ay góor ak jigéen ndax ñoom tamit ñoom jinne yi ay góor lañ ak ay ak ay jigéen beneen leeral moom mooy hal kullul buyut biha jinn mooy ndax euh, dëkkuwaay yëpp muy kër yi ndax euh, dafa am li nga xamante ne mooy ay jinne yu fay dëkk comme nit ñi di fay dëkkee yooyu ay ñaari leeral yi nga xamante ne euh, li nga xamante ne ay leeral yu am solo la ci buntu aalimul jinni wa shayatin mbokk yi yàlla tey ba dafa bind ay mbindeefam mu bokk ci mbindeefam yu bëri yooyu noonu nga xamante ne kenn mënul leen takk ku moom yàlla suñu borom moo bind lu ko soob mu bokk ci mbindeefam yooyu noonu ñu ñuy wax jinne ak doomu aadama ah, jinne doomu aadama nag la yàlla suñu borom ah, sant li nga xamante ne mooy jaamu bi moo tax mu daal di wax ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun mu ne ma jinne ak doomu aadama lu dul ñu daal di may jaamu moo tax ah, li nga xamante ne mooy ndigal yeeg tere yi ci ñoom lay dem mooy ñoom nit yeeg jinne yi jinne yooyu noonu nag laaj bi mooy ndax ñoom dañu ay góor ak jigéen tontu bi moom mooy naam ah kay ñoom ay góor lañ ak ay jigéen comme ni ñi ñi nekkee ay góor ak ay ak ay ak jigéen ah, loolu nag yàlla suñu borom moo ci àddu ci biir alquran yàlla neen wa min kulli shay'in ja'alna zawjayni ah la'allakum tazakkarun yàlla nee na bépp mbir boo gis am na góor ak jigéen ah, lépp loo gis góor la ak jigéen ci jinne yi tamit noonu la amee li nga xamante ne moom mooy góor ak ak li nga xamante ne moom mooy ah, jigéen ci xadiisu anas eh, yént bi sallallahu alayhi wa sallam anas dafa nettali ni saa sallam su doom dugg li nga xamante ne mooy waa nag dafay wax ne eh, eh, bismillah allahuma inni audu bika min al xubusi wal xabaais day wax ne maa ngi tudd yàlla yow yàlla suñu borom maa ngi wéru ci yow ngir nga daal di may musal ci li nga xamante ne mooy xubus ak xabaais mooy sobe bu góor beeg bu jigéen bi waaye nag borom xam dañuy wax ne li mu fa namm ci sobe bu góor ak bu jigéen mooy li nga xamante ne mooy seytaane góor yeeg lu jigéen ñi daan na wax ne li nga xamante ne moom mooy lii di wanag ak de euh, dëkkuwaayu seytaan yi la moo tax su doom dugg li nga xamante ne mooy bërëb yooyu noonu dafa doon muslu ci seytaane góor yi jigéen yi kon xadis boobu noonu dafay saxal ne ñoom ay góor lañ ak li nga xamante ne moom mooy ay ay jinne ah jinne yooyu noonu nag euh, góor lañ ak ay jigéen yi nga xamante ne ñu bëri lañ ñoom jinne yi ay mbindeef yu bëri lañ yi nga xamante ne yàlla suñu borom moo xam li nga xamante ne mooy seen seen lim kon lu ñu fa mën a xam mooy ñoom ay góor lañ ak ay jigéen waaye nag dañu dund comme nit ñi lañu dundee donte ne am na ay mbir yi nga xamante ne nag utti nañ ko ak nit ci lu bëri ci wàllum dundin loolu noonu incha allah soo la ñu toppee ci aalamul jinni wa shayatin eh, dina leer beneen moom mooy ndax suñu dëkkuwaay yi dafay am li nga xamante ne moom mooy jinne loolu noonu eh, nekk na ab laaj bi nga xamante ne ñu bëri par exemple ci bàyyi xel mooy suñu dëkkuwaay yi paysans yi dafay ànd ak li nga xamante ne mooy ah jinne comme nit ñi lu ñu dëkkee ci kër yi noonu la amee jinne yi nga xamante ne tamit noonu lañ fay dëkkee waaye nag ah, ñoom nag dañuy xaajaloo ci ñaari pàcc ah, mooy li nga xamante ne mooy dëkkuwaayu jullit ña ah, jinne yi jullit ñi ñoo fay faa dëkk waaye nag dëkkuwaay ñi nga xamante ne nag gëmuñu diine gi muy gëmuñu islaam ñooñu seen dëkkuwaay jinne yu méngoog seen pas-pas muy wedd yàlla ak waaw euh, yeneen diine yi ñoom ñooy méngoog ñoom la dëkk ak ñoom léegi nag ci ñooñu ñi nga xamante ne ñu imma dañuy dëkk ak li nga xamante ne moom mooy euh, ci biir kër jullit ñi wala ci kër ñeneen ñu dul jullit ñooñu dafa am ci ñoom ñaari pàcc am ñu ci ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom euh, ay shayatin lañ mooy lu baax taxu leen jóg dañuy lor nit ñi di leen fitnaan di leen tiitali ki yooyu noonu yooyu am na ñi xamante ne dañu dëkk ci kër yi di fitnaan waa kër gi waaye am na ci ñeneen ñi xamante ne ñoom seen yoon nekkul ci waa kër gi ñoom seen mbir lañu lijjanti loolu am na si jinne yi nga xamante ne dañu dëkk ak ñun seet seen yoon nekkul ci li nga xamante ne mooy mbirum doomu aadama ñoom ñi seen mbir waaye nag am ñu ne ñi nga xamante ne nag dañuy fitnaal waa kër gi bokk na ci mooy ñoom de ah, li nga xamante ne mooy sooy lekk day ànd ak yow di di lekk su fekkee waxoo bismillah muy shayatin yi ah sooy sol yére waxoo bismillah ñu ànd ak yow ah sooy dugg wa nag wa li nga xamante ne mooy sa ñaan ñu ànd ak yow bi maanaam lépp lay def rek ñoom dañu ciy bokkaale euh, ngir di la ci ngir di la ci yàqal moo di saas daal di wax ne euh, luy dox suñu diggante seytaan yi benn kàddu la mooy kàddu bismillah lépp lay def waxal li nga xamante ne mooy bismillah sooy lekk waxal bismillah ñaan ñi nga xamante ni saa sallam moom la jàngale sooy dugg ci kër sooy génn ci kër ak yeneen yi sooy lekk ak soo paree lekk ak sooy sol yére ak soo koy simeek ba sax sooy sëy ñaan yooyu yëpp su fekkee munoo ko doy lool doy lool ah, wax bismillah su fekkee mënoo ñaan yooyu waxal bismillah ci lépp looy def su ko defee jinn yi ak shayatin yi yi nga xamante ne dañuy faral dëkk ci li nga xamante ne mooy ci kër yi wala ci dëkkuwaay yi duñ la duñ la mun a lor yonent bi sallallahu alayhi wax na ci li nga xamante ne moo ci xadis muslim dafa wax ne fii ci midin fii ci midin am na ay jinn julli ji fi nekk par saa par par yenn saa day ñëw di ma ziar si man Muhammad kon pinçage su fekkee gis ngeen ci euh, mbir yooyu noonu muy pinçage yi jinne yi jamono boobu noonu dañu doon soppali ko ay jaan di dugg ci kër yi pinçage di seeyaat isa mel su fekkee gis ngeen mbir yooyu noonu ci li nga xamante ne mooy ci euh, ci li nga xamante ne moom moo ci kër yi euh, dee leen ko wax yow su fekkee jullit nga génnal suñu kër ngeen jàkkaarloo ak moom ngeen wax ko ko ñetti yoon su fekkee ab jullit la dina dina génn kon isa sallam loolu la wax mooy fii ci Médine am na ay jinne jullit yi nga xamante ne dañuy ñëw di ma si noonu la tamit tënku tënkuñu ko ci li nga xamante ne mooy ci Médine mais nag bépp li nga xamante ne moom mooy ci kër jinne yi tamit day fay fa di nekk waaye nag am na ci ñoom li nga xamante ne nag dañuy lor li nga xamante ne mooy ñu dëkk ci kër yi waa di tiital xale yi ah yi di def ay mbir ci kër yi pensaay sax mën nañu dem ba taal li nga xamante ne mooy ah, kër gi yii yëpp mooy ñi nga xamante ne nag ay seytaan lañ wala jinne yi nga xamante ne nag ay kàccoor lañ ñoom ne fa di def yooyu noonu ci nga xamante ne ñoom ci kër gi lañu dëkk moo tax benn borom xam-xam dafa wax ne amul benn kër lu dul ne am na ay jinne yu fa dëkk waaye nag ñooñu nag dañuy dem ba bokkook li nga xamante ne mooy famille bu nekk ci kër googu noonu mu nit ñi am na jinne yi xamante ne dañu dëkk li nga xamante ne mooy waa kër gi dem ba bokk ak ñoom ba leneen lu jóge ci biti di bëgga a lor waa kër gi ñoom dañuy ñëw défendre kër gi ndax foofu mooy li nga xamante ne mooy seen dëkkuwaay beneen bi jinne yi ñoo jiitu ci kaw suuf sii nii jinne yi ñooñu jiitu ci kaw suuf sii nii moo tax pensa da gis yenn dëkkuwaay nit ki ñëwee jinne terrain am ñëw rek dëkk deful ci ay ñaan pensa fekk jinne yi ñëw ko njëkkoon dëkk après jinne yi di ko fitnaal di ko naan génneel fii ak di ko ah, di ko def ay yeneen mbir gis ngeen fi ay ay tool yi nga xamante ne bay dee la tudd bay dee fekk soo xoolee bu ci yàgg ah, dafa amul ay jinne yu fa dëkkoon borom ñëw rek commencé di bay fekk deful ay ñaanam Euh, fekk jinn jinne yi nag di ko di ko sonal noonu la tamit euh, bépp dëkkuwaay noonu la tamit amee li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xamante ne mooy jinne yi fa nekk comme ni ko saa waxee ci xadis ba gannaaw bi nga xamante ne jinne jullit yi ak jinne yéeféer yi ñëw nañ di xuloo ci moom ci wàllum dëkkuwaay yéen it nee na ma daal di sant jullit ñi jinne jullit ñi daal di ànd ak jullit yi dëkk ak ñoom ak ci li nga xamante ne mooy ci gorotu montagne yi ak ci li nga xamante ne mooy ci yenn palaas yi waaye nag nee ma daal di dénk ma di sant li nga xamante ne mooy jinne yu dul jullit ñu daal di dem dëkk nag ci kaw montagne mooy montagne fu mu jeexee ci kaw pensage seytaane yi fay fa dëkk ak ci li nga xamante ne mooy ci euh, xur xur suñ ko suñ ko waxee mooy diggante ñaari montagne wala place bu lëndëm euh, foofu noonu pensage seytaane yi fay far di euh, dëkk ak place yi nga xamante ne place yu raglu la comme àll ak place yu lëndëm yi ak place yi nga xamante ne place sobe la yooyu seytaane yi fay far di dëkk kon loolu ñu dañ ko nañ ko xam mooy jinne yi ay góor lañ ak ay jigéen waaye nag ñoom nag dañuy dund dañuy dund ànd nag nit ñi ci li nga xamante ne mooy seen seen biir kër yi seen dëkkuwaay yi kon euh, ñaari leer yooyu la amoon ci alimul jinni wa shayatin wa jazakumullahu xayra asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa